ñooy raafilaay ñooy xam ni da yëguñ dara seen yaram du ñu gêné wu bu ñu wax ak góor yi wala ñu dugg seen biir ñu mel noonu góor ñu bari dañuy def ne woyof pendaa tax ñu mel noonu su ko defee dañ leen di accuser ne ñii ay fokkat lañ gisuloo ñu ni ni ñu ñemee góor ñi am na benn xale bu commencé wax sama benn élève mu jooy Franco benn xale bu jigéen boo xam ne noonu la ko yàlla day muuru day muuru mais yàlla ko bind noonu dafa dafa dafa dafa dafa ubbeeku dafa dafa day wax fii wax ak kii xale bu góor bi ne ko yow da ngaa ñeme góor loo après baat bi diis ci moom parce que xam na li mu bëgg wax mu jooy jooy yu métti ma ñëw fekk ci classe bi muy jooy ma ne ko lan la nanguwuma koo wax ma force ko ne ko non attention man maay sa oustaz maa lay jàngal te sa bàyyi laa sa way jur laa hmm? soo nekkee ci classe bi am lu loo yëg bay jooy war naa ko xam mu nettali ma ko ma ne ko xaaral toogal xaaral ma woo ma woolu ko xale bi mu ma ne ko yow li mooy dund sunna fekk sa rakk joo xam ne mag la la def yow nga xool ko nag ko moom mu xool ko nëbbul jàppale frère ñeme la amul benn arrière pensée parce que moom dañ ko yar intérieurement mu am personnalité mën a wax ak yow te xelam dajul dara yow ndekkee sa xel yëpp mi ngi ci ci ci gannaawam gi nga defee ne moom yow yëpp nga bëgg koo toroxal du ma ko nangu tey du bis bu ma dëkkatee nga wax ci xale bi jigéen wax bi danaa yóbbu danaa yóbbu direction ñu dàqal ci école bi te loolu dama dund extase bi mais ñu bari dund nañ ko bari nañuy ñuy accuser ay jigéen seen bopp lañ ko xoole parce que yambar moo xam ne lu jigéen ñaaw ñaaw su ko rombee yaramam daw yambar moomu mënul toléreel jigéen dara il faut faire très attention ku mel noonu yàlla nee na nañ ko woo ci picc mi dóor ko juróom-ñett fukki yàlla juróom-ñett fukki yar ki njaaloo woon ñaata yar la ko bële ñaar fukki yar waaye moom problème am mooy dañ koy dóor juróom-ñett fukki yar ba pare wax waa dëkk bi yépp ne leen jiw mii moom lépp lu mu waxati nit bu ko bu mu ko gëm day fen fenkat la diw mi moom lépp lu mu waxati nit bu mu ko gëm ndax day fen fenkat kon kooku li mu def moo gën a gaar aw njaaloo kon suñu bëggee mat ay jullit duñ yem rek ci bàyyi lu bon dañ koy boole téye suñu làmmiñ yi ci tuumaal gor ñi sénégalais nag loolu lu ko jafe la effort bu nekk ñu ngi koy def pour bañ a moy mais téye seen làmmiñ ci ci nit ñi moom lu leen tëdd ci la yàlla yàlla musal ci ci ñi mel noonu. donc góor jigéen dagan na fi ba pare moo tax toog fi ni xaar état bu la jàppale ci xeex góor jigéen ki koy def il n'a rien compris état buy xeex góor jigéen amu fi état yi liñ leen sant mooy ñu daganal góor jigéen dañ koo ñemee gu la wax. dañ ko ñemee ku la wax waaye nag séntu ci ñoom ñu jàppale la xeex kuy foo koy def kon mbir ci suñu loxo la nekk suñu neexee li ñun si njëriñ di ko nëbb ñu am fit wax ñu ko suñu neexee la ñu si njëriñ ko nëbb duñ ñu ko ñemee wax duñ ko fi def loolu ci ñun laaju kon institution yooyu ci groupe yooyu seen liggéey mooy tas suñu diine ji yàq dëkk bi commencé ci saaga yi wax nañ ko démb ci émission bi ñu def saaga saaga ba am medaay saaga ba am médaille yemuloo ci mais nga saaga ki ñu waroon a gën a ragale saaga muy njiitu réew mi nga saaga ba doyal te kenn du la tudd ku la tëj ñu ne génn ko génn ko deful lu dul wax xalaat wax li mu lan la xalaat saaga njiitu réew loolu lay xalaat gaa <laughs> gàtt xalaat xalaat xalaat gisuloo lu dul saaga njiitu réew mi su ko defee ñii defe ne seen yoon nekku ci ñu farak njiitu réew mi mer lool te luñ ko dara parce que ñoom ñëpp dañoo am seen kilifa te seen kilifa ne maa nga xaar ba ma gis ku laal booy bi mu naqari la rek noppi mi ngi saaga njiitu réew mi neexu la parce que gos bi xam nga ne daa réew waaye nag doo ko laal ndax ki leen yilif ñoom ñëpp nee na bu kenn laal booy bi kon il fallait ñu def loo erreur booy bi ba mu saaga ku kooku yiliful euh, ah c'est très ñu def loo bi ba mu saaga ku su ko defee njabootu kooku dal ci kawam ñu tëj ko ndax suñ moom ci moom mooy bëgg ko tëj ndax dugg kaso moo gën a yomb def alaxira ah non dëgg bii fii kay feneen kay laa jaaxlooy fii moom li ñuy def am na xam naa ci am naa ci lu xam maag ñun ñëpp koo na ñun ñëpp koo xam fii dara na ba tuufi xamoon naa ne saaga yi du yem ci ñoom ci moom ci ñun ñii la jëm si waaye ci suñu kilifa lañ jëm si su boobaa nag du ñu bàyyi ku bokkul ci ñun mu saaga ñu ndax su boobaa ñun ñëppay dal ci kaw dañuy wax ñun ñu saagaan ñun ñëpp ñu ngi saagaan ku nekk ñu ngi saaga sëriñu borom loolu lu ñu programmé la su ko defee.

lu mën a am njariñ la ndax jamono ko indi te jumtukaay bu efficace la waaye paaka ñaari boor la paaka ñaari boor la mën naa laa daggal li li ñu war a dagg waaye mën naa dagg loo bëgguloon dagg média yi mën naa defar waaye mën naa yàq léegi nag ku la gën a organiser yow lay defal li nga bëgg ñi gën a organiser wu mooy ñi bañ société bi jaar woon ñoo gën a organiser wu moo tax ñoo gën a mën a jëfandikoo média yi aleykum salaam moo tax média yi ñu ngi defar de waaye ñu ngi yàq te lu ñu defar ci bëccëg bi yëpp benn trent minutes ci guddi gi mën nañ ko cee yàq joxe naa fii léegi misaal ci fisal gi ñu fisal mbon ba kenn faaleetul ku bon kenn séexlootul mbon kenn xeebatul ku bon ci diggante ay émission tësëg ay xalaas waaye effet état bi média yi ëpp na lool ci film yi ñuy dawal ci débat yi ñu organisé sax débat yi ñu organisé ñu ngi ci yàq lu bëree bëree bëri d'abord ñi ngi ñi ngi siiwal crime cest à lu ñaaw lu nekk léegi dañ koy génne ñiy rey nit ñi ngi leen di génne ñiy saaga ñi ngi leen di génne lu bon lu ñu mas a def léegi buñ ko defee nga teg ci sa bët te loolu am na ñaari effet effet bu njëkk bi ci julli mooy day rey xol yàgg xol lu bon yàgg xol lu ñaaw day rey xol bi ci topp mooy day tax a ñeme lu bon bari na lu xale yi ñemee léegi ñemewuñ ko woon média bi moo tax ñu ñeme ko film yi ak scotch yeeg yooyu moo leen tax a ñeme lu bon lu def léegi ndax dañ koy essayer ci seen borom yi ñi ngi rek xale yi ñu ngi reyante ñu ngi jamante te loolu yëpp dañ leen ko jàngal te loolu yëpp média bi def na kon média day yaatal crime day yaatal criminalité da koy yaatal ndax da koy ñemeloo ñi ko bëggoon a def te ragal waaye day tax mu woyof ci bëtu nit ñi dégg day ni sax dañuy faatu ñu ñëw filmé ko noonu génne ko ko oto rey loolu Sénégal rek ko ñeme hmm. Sénégal dong moo ñeme nit faatu ci accident nga foto ko Sénégal fii dañ koy def euh, taayale am na audio bi mu yónnee ma sot ba dëkk ba seetaan mais duma ko defati jigéen ju ñu tiim di ko jam ay paaka benn couple defe naa seen jànqaloo woon lañ waxal seen jànqaloo benn benn étranger benn négresse jigéen di ñuul ay naar tiim ko di jam paaka ba mu dee mu def yaramu neen ñu fëlme ko yónnee ma ko léegi man kii ma ko yónnee lan la bëgg ma def lu dul naqaral sama xol bi noonu moo tax bi bëgg maa naqaral lool lan lan la bëgg ma def dama ko woowaat ma ne bu sëñ bi tooñ nga ba ma ci kanam yàlla te su ma sañoon doo yónnee lii te maa ngi lay ñaan bu ma ko yónnee lii loolu musiba la fi mu ne amul lu loo yéem a xool léegi ndax lu ñaaw lu ne ni la koy xool la farfar loolu média yi ñoo ko fi def média yàq nañ jikko yu rafet yi ndax jikko ju rafet léegi du fi du fi ndam ñaaw fi jikko mooy ndam waaw bokkoon na ci li tax nit ki di góorgóorlu bu baax mooy bu baaxee dégg jërëjëf léegi baax taxu la dégg jërëjëf léegi bon mooy tax a dégg jërëjëf te loolu média yi def loolu moo wax nañ ko démb ci émission bi ba fi tuub jógee lan lu nekk mën a xew ci dëkk tuub ba ma déggati ko est-ce que yéen a ngi dégg tuub rek. non mais Sénégal ni muy soppeekoo ni mu gaawee mais kenn ku su gis bu njëkk da ngay dégg jékki rek dégg kilifa gi ne tuub ana ko wax loolu ñu ne diw mu ne ba ma déggati léegi kenn waxatul tuub ce que ñi daan wax tuub ñoo bàyyi. déedéet ñi daan wax tuub ñoom la la daan taxe wax a tuub naqareetu ah. yow ci sa bopp da ngay soppeeku te doo ko yëg yow way juri yaay dem ba dara du la naqareeti c'est trop c'est trop c'est trop lu métti lu métti la fi toll su ko defee tasaare mbon wax nañ ko fi indi nañ aaya bi loolu modd la léegi ci dëkk bi léegi lu waaye xam ci lu bon nag ko wax ndax soo ko waxee am xaalis gannaaw gi laa yëg ne ndeke saaga yi am na xaalis ndeke soo manee saaga surtout nga saaga ku ñu mere ñépp bëgg a dégg lañ ko wax suñu koy ubbi rek am nga point am na fu muy egg YouTube moo lay jox ay millions ndeke am na ñoo xam ne mënuñoo sañ a bàyyi saaga ndax amuñ luñ liggéey amuñ luñ dunde léegi saaga rek lañ mën a def pour am dara xam nga kooku dana saaga su ko defee ñu saaga kilifa yi saaga njaboot yi kenn ku nekk ka nga nawoon ñu tudd lu bon tudd ko loolu lu metti li loolu lu jara bàyyi xel la su ko defee mën naa tënk tomb bi foofu li ma ci waroon wax ëpp na loolu waaye li ma ci war wax yëpp xam ngeen ndax maa ngi yéen ñoo ànd dëkk ci dëkk bi li ma fi wax yëpp maa ngi yéen ñoo ànd dund ko fii daal moom jagatu Sénégal gi jagatu te gisaguma lu décidé jagal lu ko décidé jagal gisatu ko kon nag ñun ñëpp ñoo am intérêt ci toog waxtaane ko ba mu dellu fa mu nekkoon te loolu mën naa nekk ndax nii mu melkat arrangé wul kenn arrangé wul gëm yàlla arrangé wul ko gëm kon maa ngi jégalu ñëpp nag maa ngi jégalu ñëpp ci li fi jaar lépp nag waaw doomu aadama moom daa ñàkk solo lool lu mu dugg rek ak ak dooma niteem gi feeñ dugg rek niteem gi yëfu nit rek la yàlla na yàlla jëngal yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla aar yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na yàlla àggale nawet bi te barkeel suñu xel dal na am na weer ci gannaaw ñëpp a ñi doon baye ñi doon bay ñëpp a jax kenn ku ne sa fit dem ndax xam gi ñu xam ne bu nawet amul ñëpp sonn léegi ñu ñaan yàlla wuyu nañu ndox mi ñëw na insha allahu yàlla continuer te nekk ndoxum barke ndax ndox mi mën naa bari itam te duñ ko te duñ ci jëriñu kon yàlla nekk ndoxum barke yàlla na nawet bi baax yàlla na réew mi am jàmm am jàmm ci biir yàlla na yàlla jàppale kilifa yi ñu taxawu njaboot yi ba delloosi leen ci seen sag ba ñu bàyyi jigéen jëkkaani jikko yu bon yi nga xam ne moo ñu taxa am la ñu naqari ci réew mi yàlla nañu yàlla jàppale oustaz jërëjëf ñu ngi ñu ngi lay ndokkeel waaw ñu ngi lay ndokkeel bi di ñaan yàlla nga yàgg koo taxawee waaw yow moom on se connaît très bien macha <laughs> oh, <laughs> moom di ko am incha allah ndax man danaa ko ñaan waaw donc xëy na dama xamul nag sama bopp laay ñaanal wala yow laay ñaanal waaye da nga am jàmm ndax <laughs> man sa jàmm ci def maa arrangé <laughs> yow li ci seyoon. <laughs> salaamaaleykum wa